ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalatu wasalaamu ala man la nabiya baadu sayidna moulana mouhamadin al makin mbokk yi ñu ngi fii ci Touba ci màggalug Serigne Cheikh Mouhamadul Fadal eh, di bisub Kazu Rajab yaakaar naa nit ñi jóge nañ fépp ci àdduna bi ñëw fii ngir di ko teewe ngir di ko taxawu muy bis bu tedd boo xam ne yaakaar naa boo xoolee xam ne lislaam tey jóge nañ fépp ñëw teewee fii ngir fas yéene ko màggal yaakaar naa mbokki julli di mbokki taalibé yi ñëpp boo xoolee sa yaram dina daw sa xol dina sedd kon ñi ànd ak feex production ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar baax ñu ngi euh, jàkkaarloog euh, suñu maam euh, sëñ Adama Ndiaye mu nekk ci barabu Cheikh Mahamadoul Fadal ñu tàll ko suñu micro yaakaar naa nag moom dana xam li muy wax sëñ Fallou xam ko sax mënee ko ba ma mat xam ko kenn mënu ko def sëñ Fallou ndax suñu borom moo ko baaxee suñu borom ku mu baaxee ko moom xam ne dina jafeñ waaye nag alhamdulilah rabbil alamin benn murid ñi xamuñu ko waaye noo ngi koy noo ngi te sëñ Tuuba moom mooy borom na am mu am borom du am du am loolu suñu borom a ko ko yow mi boo jàqee da nga tudd sëñ Fallou boo jaaxlee da nga tudd sëñ Fallou boo bëggee da nga sant sëñ Fallou kon sëñ Fallou moom daanaka mooy yaakaar jaam ñi ndax ruugu dem ba bar sax mu delloosi ko ci àdduna sëñ Fallou dong la ko suñu jagleel. daa mel ne yow bu ma xoolee eh, yaakaar naa jamono sëñ Fallou fi la la fekk. <laughs> yow man fi ma fekk ah fii nii képp ku ma sa jaaxle mbaa nga jàq boo ñëw ci sëñ Fallou rek sëñ Fallou saafara na loolu saa na mhm. ci jafe-jafeñ mhm. dañuy daw song ko mhm. bu dem ndox la day waxaat daw leen i dugg ci kër yi bala ngeen a tooy bala ñoo daw ci kër gi rek suñu borom sotti ndox mi kon sëñ Fallou moom sëñ bi lañu xam ci moom lépp alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ko yàlla sëñ Tuubaa fayal te tax nu nag ci barkeem amiin amiin te yéen itam yàlla ngeen fi sëñ Fallou bàyyi leen fi ndax li ngeen def lu am solo la ah, ndax fi mel lii da ngeen koy xamle ji te ña ko xamut kon ña ko xamut mhm. te ngeen di yóbbu xam xamle ko fa kon nag yàlla muy taxawal yàlla na yàlla bokk taxawal barkeb sëñ Fall jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi taxaw ak uh, sëriñ bu baax yaa ngi tudd nan jawrin Amari Sarr jawrin Amari waaw moom daa mel ne sama doomu baay la maa ngi lay ziar bu baax Sarr dafa mel ne dañ laa fekk fii ci uh, buntu kër sëriñ Abo mu Cheikh Mamadou Fadal uh, nga mel ne macha allah tabarkallah waajal nga bis bi lan mooy si teewaay fii tey man de sama teewaay fii bëgg sëriñ Fallu rek moo ko indi parce que nekk ndaw tamit sa te diine moom mënoo ko xam te xamoo Serigne Touba ak njabootam te Serigne Fallou dafa liggéeyal loo xamante ne nii kenn xamoo lu mu toll yow yaa ngi fan màggal Serigne Touba maa ngi jógee Dakar jëppal ah, laa dëkk jëppal jëppal derk la mais tey suba teel laa ñëw sax incha allah tey suba teel laa ñëw lan ngay soññu ndaw ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si lan mooy seen taxawaay ah ñu ñëw rek ñu ñëw rek billaahi parce que Serigne Touba moom suy def si yow lu muy def si yow doo comprendre sax waaw mbokk yi ñoo ngi taxaw ak soxna su baax euh, soxna Cekk Seck yaakaar naa ci soppe la bokk macha allah tabaarkalla taal bi sëñ Fallou kenn euh, na solo lool ñu dajeeg moom nag ci buntu gi muy barabum ñaanukaay di barab bu sell ci Touba ñëpp xam ko soxna Cekk Seck ñu lay tàllal suñu micro Tawfekh Production di la laaj yan kaddu ngay sànni ci bis bu tedd bi di bisub Cheikh Mamadou Fadal waaw gin ginnaaw bu ñu sante yàlla jund ci yonante bi sant euh, sëriñ Bamba di sant sëñ Fallou nag ndax sëñ Fallou moom lan yaakaar tey ak ëllëg yàlla danoo def ci boole ko taaliba sëñ Fallou yi may taaliba sëñ Cheikh ummi Fallilou kon boobu bu ñëwee fii sëñ Fallou woote ñu màggal dañuy ñaan danoo war a màggal si te ñaan yàlla yàlla nangu ñu sunu màggal ba lépp luñ fi ñaan rek mm, yàlla nangu ko ak sëriñ Fallou mi ñu tax a jóg waaw di sant bu baax nag di sant bu wér di kontaan lool. looy wax euh, soxna yi nga xam ne dañuy màggal si ana ban taxawaay lañu war a am ci bis bi. waaw soxna yi war a màggal taxawaay bi moom mooy nii rek ma bu la màggal jóg see ku bëgg lu baax moom lu baax yombul. waaw boo ñëwee daal moom ñëw màggal tax laa jóg ndax màggal moom jaamu yàlla la ak cant la ak cant la yaakaar naa ne li la fi war a indi rek mooy sellal jubal te li la fi indi ñëw ñaan say soxla. sëriñ Fallou fajal la ko. relation soxna yi ak sëriñ Mouhamadul Fadal Cheikh Mouhamadul Fadal ci àddina bi loolu dafa nekkul loo xam ne kenn dootu ko laam-laamee ana yow loo ciy wax en soxna Cek. waaw loolu moom xam naa ci dara ndax la mu saf kaka ma ca ko xam ndax sëñ Fallou moom nee naa la juróom-ñaari sëñ Fallou sax ëpp na woo ca benn rek neel sëñ Fallou rek yaakaar ko te man xam naa ci dara man mi mu booleeg doomam ji muy Cheikh Oumy Fallilou kon xam nañ ci dara ndax sëñ Fallou moom nee nañ ku jàq moom ngay woo te xam képp ku ci jàq wala ngay jaay sax yaakaar a sëñ Fallou rek te sëñ Fallou du tas yaakaar. waaw soxna Cekk kon am na solo lool ñu ngi lay ziar baax jërëjëf. ñu ngi fii ci Touba comme ni ñu ko euh, ni ñu ko gisee mbooloo mi ak mbokk talibé yi ñëpp ñëw nañ ah, yaakaar naa bis bi nag day bisub lislaam ndax damay wax ne sëñ Touba euh, mbooleem bis yu tedd yi nga xam ne ci euh, lislaam lislaam daf ko am bis yooyu dafay ñëwaat ci biir moomeelu sëriñ bi yaakaar naa Kazu Rajab doyoon na sëkk rek jullit ñëpp jóg fas yéene koo màggal muy dëppoo gi nga xam ne moom la dëppoog euh, laylatul isra wal mi'raj yaakaar naa boo leen xoolee Touba euh, nit desul fenn ñëpp ñëw nañ ngir fa yéene màggal bis bi bis bi nag taalibe yi dañ ciy fésal seen bëgg Serigne Fall ndax Serigne Fall damay wax ne euh, mooy koo xam ne bàyyiwul fenn boo demee ci mboolem xeetu këru diine yi ba ci yeneen diine yi nga xam ne sax dafa bokkul ak lislaam da leen di fekk ñuy tuddee Cheikh Mahamadoul Fadal waaye da nga leen di fekk it ñuy wane seen cofeel ci Cheikh Mahamadoul Fadal kon ñu ngi fii ci Touba di nuyu ñëpp di siyaar di nuyu mboolem ñi nga xam ne dañuy ànd ak seen site Tawfekh Production di leen dalal ak jàmm ci bis bu bi te lu ñor mu jébbal baayam ci réew mi